yàlla def na comprendre nañ lépp parce que jëmm ji li ko yàlla may ku ko yàlla may nga bokk ak moom koñ wala nga bokk ak moom dëkk soo deful attention dëgg amoo xol bu rafet dëgg du ne xolu jullit de xol bu rafet dëgg dëgg dëgg boo ko yorul di xëy ñu di ko di di ko gis partout di ko dégg partout média national internationaux xale yi internet bi mu mel ni ku jënd TikTok bi non boo deful attention dëgg dëgg dëgg booy weddi xaru soo deful attention dëgg parce que xam ngeen ne lii ngeen di def nii mbañal mu ngi ci biir yow ku la xool xam ne Sonko nekkoo adversaire politique am da ngeen ko bañ buggu leen ko gis buggu leen ko dégg bu ngeen sañoon xale yi li ñuy Sonko Sonko nii du am day dakk mais yéen kii bu ngeen ko tëjoon cent ans quatre dimanche dimension bi ko yàlla may day gën di yokk amul tànk ginnaaw Sonko dañ koy gën di bëgg